maa ngi fàttali ku nekk ku nekk xel comme nit ñëw ko bu ñëwee dugg na ci néeg yi ba wër ba noppi fekk ci ca sama mu wax mooy damaa ñëwoon di seet si daara daal bi ma dugg naa ci néeg yi am na benn néeg ma dugg euh, waaw dañu ma dañu ma léegi na waaye cat gi cat naa ci am néeg fekk fa photo Alaaji Diouf ma ko kuy kooku ñu ma ab footballkat la waaye léegi boo ko fekkee lu jëm ma léegi li ma jëm mooy sport lu am solo la ngir dafay boole xoli nit ñi léegi te sport boobu ñëpp mu ñoo dem stade dem fa seetaan maanaam ñi nekk fii moom fokk télévision di leen di mën a andil ñu ñu di ko seetaan ndax ku la andiloon télévision fii dana la neex na ma waxee moom man waaw télévision daal li ma la si wax nii mooy li ci borom xam ñu ko wax li ci gën ñu jëm bi télé bi moo aram waaye la ñu cay teg nag ñu di ko si daal loolu la ñuy xool benn mooy alal mbaa mu nekk alal. daal di ko léegi boo ma doon indil tension yi daal mooy nga indil ma ko indil ma xob tële te seet nag li ma neex ma ci teg. li ma li ma bëgg man nga xam ma arrangé ci yàlla bi ma yàlla nii ma di nga ni ko ne bu jotoo da nga koy seet ñu fox ci lu nga di ko am ba nga ni bu gën a xale bi nag dafa juddu judduwaale gën am fox bu fekkee da ngaa indi ab tension tegal ko fa poom kese kese def ko ca tegal ndax du gëm ni fore kay dëgg. lu maa gëm waaw a avancé am réew wala ko avancé. la wax mu ne waaw man bu bi nga sax bi di lijjanti fii bu lijjanti boobu mu ne ah man ma la ma ne may. ab chef de l'état boo xam ne doo ko tànn ba teeloo ko ci réew muy muy ronqal alal alal réew ma di ko yo bitim réew di ko nekk ngir ëllëg bu bu ràcc ko maa ngi ko ma ne ko léegi tëj li ñu lijjanti fii mooy lijjanti loolu fi mu mooy lijjanti loolu mooy lijjanti doo tànn nit ba ko réew muy sàcc alal di ko yóbbu ma ne ko moo lay may doo dem ba tànn ab ministère dénk ko à poste la muy xel jëma def mooy muy ji ba dénkaale ci ci biti ma ne ko tëj kooku moo la mën a may ba ci sàngaman bi nga teg ci yoon bi di ko contrôle oto yi si sarse ñu taxaw fa di laaj ñaari tamit def seen poste. cet gi ñu lijjanti fii bu lijjanti ko loolu yi dana lijjanti ko dana lijjanti ko waaye. daal di ko yow foo foo jógee mënul Dakar mu ne ko yow dafa am si kër mu am benn problème mu ne ko téeméeri mu ne laa pare. <laughs> ma ne ko da ngaa war a taxaw dafa lijjanti ko gaa yi xam nga ko jëndee jàpp set bi rek ci lu waaye loolu la li li poussé mooy jamono bi ñëpp lim lim nekk lim ñu woote. di si jéem a gën a teg tànkam ndax ak moo di si loolu lu simple lu yomb a yomb loo xamante ne comme ko bëgg a jàng ci mbedd mi rek rek la gën mbooloo daje la wax lu leen neex rek léegi ñu daal di yoo léegi wax ñu mën dëgg yomb rek nga wax ne man ab murit laa te doo ab murit amaanaa nga gis waa ñu dox ba am ay murit nag te kat du murit. te it gis waa ji dox ci murit ba dundam ba xëy xëy jee mu dee ak murit. murit dëgg dee dee te deewul ndax li dee metti metti deful ak murit. loolu daal ndax booy ko léegi loolu xam naa dañuy def bés set ñu jël ci wax ci tuuti rek ñoo la bëgg jël mbir yi. di ñaan yàlla ñu defal ñu ak dégg